salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi Safinatou Touba TV ñu ngi nuyu ñëpp leen ziar di ñaan ngeen wéy di gën di abonné te cloche de notification bi ngir ngeen mën a am vidéo yi incha allah te bu leen fàtte tamit di aimer vidéo yi ngir loolu mooy njëriñul chaîne bi su ko defee itam ñu ñëw tey ci siru latif bu am doole ñu wax cent 1935 1935 nag siiw na ci ahlalam asin ak na nasabin qaxtarishin waaye am na tamit talsam bu koy buñ koy junj waxina azmazin noqosadu siiwul nag moom waaye tur bu am doole la ci wàllu xëcc wàllu chance wàllu xéewal wàllu tàggat mbokk yi soo ko bëggee liggéey da ngay def astaghfirullah cent fois muy téeméer salaatul ummi téeméer bismillah rahmaani rahim cent vingt neuf yaa latif mille neuf cent trente cinq nga di talsam bi waxina azmazin noqosadu cent vingt neuf nga teg ci allah latifun bi ibaadihi yarzuqu man yashaa wa huwal qawiyyul aziz fois incha allah liggéey ko diiru fukki fan ak juróom nga xool di nga gis yàlla ni mu lay ibbilee buntu xéewal yi te daqal la njàqare yi chers frères et sœurs nous sommes revenus avec un grand secret de Ismu Latif 1935 vous le connaissez en tant que Ahlulamasin ak Nasabin Qahtarisin mais cette fois-ci ça vient d'un autre nom wahin azmazin noqsadu c'est un nom très puissant pour attirer la chance pour se faire aimer et pour avoir de l'argent inchallah tu fais astaghfirullah cent fois salatul ummi cent fois bismillahi rahmani rahimi vingt-neuf fois ya latif mille neuf cent cinq fois et le azmazin noqsadu cent vingt-neuf fois et allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa alqawil aziz 129 fois incha allah si vous le travaillez pendant 15 jours vous verrez ce que vous voulez incha allah salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh